salaamaaleykum mbolo mi euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant euh, di nuyu association yi teew fii euh, muy association bi nga xamee ni que moo ëmb handicapé yi au niveau départemental bon membre yi fi teew waa forme éduc ñi ngi fii aveugle yi ñi ngi fii Euh, les sourds son la là donc handisport aussi représenté ak euh, association nationale des albinos euh, di leen nuyu ci sama tur di leen nuyu tamit ci suñu turu président muy le président Abdoulaye Dièye mi nga xam ni moo ñu sant tey nañ leen woo fii ñu daje gi yéen daje bi nag. liñ ci wut ñaari yëf la benn bi mooy gën a sensibiliser nit ñi ci mbas mi ñu dugg beneen bi mooy mu jàppale leen ci ay jumtukaay yi nga xam dina mën a tax ñu aaru ci mbas mi muy ay masque ndax gis nañ bi ñu weesoo première vague bi dañoo jékki-jékki ñëpp naagu woon ba defe ni kat tër nañ mbir mi waaye ñu jékki-jékki ñu gisaat muy jóg di jóg di jóg di jóg te di def lu raw li mu defoon ci première vague bi di rey lu mu dul woon rey di tëral lu mu dul woon tëral a ah, loolu nag bi mu amee suñu président ne ñun kat nawoon fawoon mooy bu njëkk bi dañu nekkoon ak askan bi deuxième vague bii di ñëw fi aussi il faut ñu ànd jógaat taxawaat ci kanamu askan wi sensibiliser leen accompagner leen looloo waraloon tey suñu daje bi semaine bi passé demoon na ci jàkka yi dem ci école yi waxtaan ak maîtres yi waxtaan ak élèves yi jàppal leen ci jumtukaay maanaam ay masque ak ay gel tey nag mu ne nañ dem ci association des handicapés yi ak association bi nga xam ni moo ëmb Euh, artisans yi nekk fi cees ndax ñoom it dañu lancé woon benn campagne boo xam ne dañ ko tuddee un artisan un mask vraiment mu ne nag ñii ñii ñu jara dooleel lañ mu ne woon kon ñooñu tamit nañ leen boole ci li ñuy def lii nag boo ko gisee daanaka mooy acte deux bi acte deux acte un bi moo doon école yi acte bi ñuy def contre deuxième vague coronavirus bi mooy bii ñu nekk tey mooy ñëw waxtaan ak yéen ngeen xam ni kat mbas mi mi ngi ci dëkk bi ah, te comme yàlla def na amaguñu garab li ko mën a liñ ci mën a aar mooy ñu ñu nekk ñu jël digle yi ñu borom borom xam-xam yi jox. digle yi ñu waa waaye euh, médecins yi jox ñu mën ko appliquer ni mu waree maanaam mooy ñuy takk masque fu ñu toll di raxas suñu loxo yeeg saabu ah di garder distanciation sociale bi defe naa yooyu bu ñu ko defee wàññi daje yi wàññi xew yi comme ni ñu ko waxee defe naa yooyu bu ñu ko defee yàlla mun nañu aar ci feebar bi di boole ko ak ñaan donc ci tënk loolu moo doon message bi nga xamee ni que président Abdoulaye Dièye newoon na naa leen ko wax ba mu paree it jël na lu mat mille 1800 masques jagleel ko association ensemble association des handicapés yi ak euh, albinos yi donc boo ko xoolee ñoom ku si nekk di nga bu ñu ko see ku ne dina am 300 beneen bi aussi mu jël mille masques dote ko artisan yi nga xamee ni ko ñoo nekk fii Thiès te nee na mi ngi seen ginnaaw. acte bi lu mu laaj rek feebar bi lu mu laaj rek dineen di di tant que mi ngi fi dineen dineen koy xeex ba mu jóge fi ndax xeex bi dafa feebar xeex feebar bi dafa laaj endurance de course de vitesse mais course d'endurance la donc lu ci nekk acte bu ñu ci war a teg dineen ko ci teg bu ñu jógee fii su bu ñu jógee fii tey suba acte trois bi la ñuy teg acte 3 bi euh, jeunes sigi yi suba ñoo ne ñoom yi dañuy dem ci marché yi point yi nga xamee ni que fële nit ñi dajaloo bu baax te ñi fay sol masque bëriwul bu ñu demee waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ba pare yëkkati masque may leen donc vraiment encore une fois euh, ñoo ngi renouveler suñu disponibilité disponibilité président Abdoulaye Dièye di renouveler disponibilité président euh, di renouveler disponibilité mouvement Siggi jot na di wax ni du daw mukk engagement am engagement mooy lan accompagner accompagner les populations thiessoises en particulier donc loolu mooy credoom te du ci mus a wàcc xanaa dañuy ñaan yàlla rek yàlla kàttanal ko ba mébétam boobu muy am mu fas yéene ko di ko mën a mottali fu mu toll donc maa ngi gërëm yéen ñëpp ci seen présence vraiment di ñaan yàlla mbas bii fi nekk yàlla jëleel ñu ko fi nu mu gën a gaawee jërëjëf. remercier aussi euh, suñu suñu mbokku kii suñu mbokku journaliste yi ñoom depuis le début ba léegi bi ñu lalee di xeex ba léegi ñoo ànd parce que ñoom it dañ am rôle bu am importance bu ñu ci waaw parce que ñoom daanaka euh, vecteur de transmission lañ boo xëyee suba mënoo xëy suba ba ngoon te déggoo leen ñu traité. feebar bi te pourtant ñoom it dañoo dañoo yuuxul rek mais ñoo gën ñoom ñëpp ils sont impactés comme tout soo monde sont impactés comme tout le monde mais néanmoins ñi ngi jàpp fi ñu jàpp ne duñu bàyyi dañu ànd ak ñëpp ànd ak Sénégal xeex xeex bi ba ba ñu daan li ñu war a daan donc vraiment encore une fois maa ngi leen di remercier ci turu président Abdoulaye Dièye di leen wax ni euh, di courage euh, incha allah bu ñu ci jàppee ñun ñëpp dinañ mën a tër. feebar bii nga xamee ni ko moo ëlëm moo ël moo lëmbe àdduna bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ku ci nekk maa ngi lay nuyu ak ci sa tur ak sa sant léegi maa fi teewal association nationale des albinos du Sénégal parce que président bi dafa dafa dem Conakry quoi tey moo taxoon bi ma ko waxee ci suba si mu ne ma naa ñëw ma teel ko fi parce que xam naa ne moom gën a mën a wax ay kii parce que association bi ñu ngi ko créé 1997 euh, Euh, fii ci euh, fii ci Sompaté 2 euh, di gërëm sëñ Ablaye Dieng yi parce que yaakaar naa ku tudd Thiès dégg ko ci yàgg naa dégg muy dimbali ay handicap du tey rek kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax parce que yaakaar naa moom dong moo ñu ci booleegul parce que am na ñu bari ñoo xam ne bu ñuy def seen i ndimbal wala seen kii. du du am na ñoo dañ ci beddi handicapé yi xam naa ne kon moom tey moo moo ñu moo ñu woo pour pour ñu pour ñu gis moom lañ gis mu defal ñu ndimbal comme comme albinos kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm man maa fi teewal association nationale des albinos du Sénégal parce que euh, bi ma euh, Bamba moo waroon ñëw mais nekku fi bi ma waxee loolu mu ne ma naa ñëw ma teewal ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp merci. ah ok. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Massamba Seye maa ngi maa nekk coordonnateur handicap forme éduc bu Thiès maa nekk président handi sport maa nekk aussi président euh, coopérative d'habitat bu personnes handicapées yi fii ci Thiès nekk membre responsable ci mouvement jot na bi président Ablaye Dieye jiite fii ci Thiès ah kon yàlla dogal na ñaari wàll laa taxawe tey fii di leen nuyu di wax salaamaaleykum di njëkkee nuyoo bi ci président Ablaye Dieye du nuyu suñu freer coordinateur national bi toog jiite jataay bi muy ci euh, euh, ci Yacine ñu ngi koy nuyu bu baax ci turu président Ablaye Dieye di nuyu le secrétaire permanent suñu rak suñu xarit euh, suñu frère Massaer Gaye mi toog du nuyu ñi fi teew ñëpp nag association yi fi teew yëpp ndax Massaer tudd na leen jarul ma ci jaaraat euh, di nuyu euh, suñu frère ak sœur yi nga xamante ni ñoom it ñu ngi bokk ci mouvement Siggi Jotna ah di sant yàlla nag di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di gërëm président Abdoulaye Dieye ndax du tey lañ njëkk a ñëw fii dugguleet ñuy ñëw ci saal bi wala dugguleet ñuy ñëw ci kër gi li ko waral nag mooy ku nekk xam na ni mbas mii ñu nekk muy Covid 19 bii ca njalbeen ga daaw bi nga xamante ni Sénégal ñëpp jaaxle nañ yàlla def ku nekk ngay euh, wut foo jëmale sa bopp waxoon naa ko mennum président Abdoulaye Dieye moo ñëw képp kuy association handicapé te nekk fii ci cees mu fekk la ci sa siège yaag say membre du ceeb du dëwlin du suukar lépp mu yëkkati ko teg ko ci suñu loxo ñu dimbali ñu dimbali kooko ca mbas ma ndax kat xamoon na ni ndimbal li président de la république doon joxe booba yeexoon naa yegsi ci personnes handicapées yi moom Ablaye Dièye mu ni xaaral kon gaaw ma ñëw taxawul président ñooñ nga xamante ne ay njabootam lan ci la jële woon alal ju bari jënd ko dund bu bari ñoo jox ñu ko ren jii nag bu ñu toogaatee ba yàlla dogalit ñu nekk ci deuxième phase bi ku nekk gis ko moom lañu gisaat mu dajalewaat ñu tey ngir li nga xamante ni moo jëm ci ay masque yu deme noonu mu ni kat ginnaaw bu ma paree ci école yi ah naa woowaat sama mbokk handicapé yooyu ma jàppalewaat leen ci loolu kon du ñu def lu dul di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ah wax dëgg yàlla nag nit ku la gërëm ku la defal nga sañ kaa gërëm te dugguleet du tey rek lañu lañu la ñu ab seq ak Ablaye ji wax naa ko sànq kon nag ñun jàpp nañ ni fa suñu balaa suñu bët a xonq sax ñu gis ko kon ci turu mbooloo yi fi toog yëpp muy ANSMS muy l'amitié des aveugles muy And Sport muy ANAS ñun ñëpp ñoo ngi wax Ablaye Dieye jërëjëf yal na la yàlla fay yal na yàlla dëgëral la ah monsieur le coordinateur boo demee waxal ñu ko ne ñun kontaan nañ ci moom te man la ma ko waxoon rek kuy kuy kuy jëfal yàlla bu la yàlla fayee rek nga ruus ndax yàlla moom mën na boppam. te lii muy def yàlla dong la koy defal ndax bu ko neexoon mu ne damay politique est laa dëkk kon est rek laa jëmale sama ay ay ay ay ay ndimbal mais defut loolu une des rares ñi gën ñi raara raara raar ci politiciens parce noonu la ñuy doxee qu'on se la vérité man zone nord laa dëkk lu may am zone nord laa koy yemale parce que waa zone nord laa yaakaar bu ma bëggee nekk mairie foofu laa koy nekke ku dëkk zone ouest mu ni man lu may yor ouest laa koy yóbbu ku dëkk est noonu mais ab Ablaye Dieye moom doxewul noonu xàmmewul ku dëkk est ak ku dëkkul est moom li muy def da koy def te yàlla tax kon yàlla na ko yàlla fay kontaan nañ ci moom sant nañ ko gërëm nañ ko suñu mbokk yi nga xamante ni ñooy sonalis yi sànq bi may wax dama leen a euh, tuddul woon mais ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay rafet na kon daan loolu foofu lay wàccee kàddu yi.